ca Banjul ca école français ba ba ca Kano waaw euh, président ngi ñëw moom ak euh, président dama Barrow euh, pour inaugurer école sénégalaise de Banjul nga xam ne moom président moo joxe ndigal ministre de l'éducation nationale nañ ko reprendre nañ ko nañ ko defaraat modèle bi ñu fi def nag mooy modèle bi nga xam ne mooy modèle xam ne moom président moo joxe ndigal euh, ministre de l' éducation nationale nañ ko reprendre nañ ko nañ ko defaraat euh, modèle bi ñu fi def nag mooy modèle bi nga xam ne mooy modèle bi nga xam ne moom la président bëgg ñu def école yi ñuy tabax Sénégal yëpp à partir à partir de maintenant ak école yi ñuy defaraat yëpp modèle bi gis ngeen ko 15 euh, salles de classe la ay terrain ay bloc administratif bloc d'hygiène yu moderne yi nga xam ne wuute na ak li fi amoon te dafay nekk ci R plus loolu président wane na que moom ci nguuram Sénégal bi africain la panafricain la panafricaniste la Sénégal bi moom dafa loolu dafa lu nga xam ne daf ko def ci xolam en tout cas ba ñëwee ba léegi démb ba léegi gis nañu ne euh, les autorités gambiennes ñoom tamit teeru nañu ci euh, ni mu waree euh, def ci dans de bonnes conditions en tout cas ñu ngi kontaan ci li nga xam ne tey moom la ñu gis muy Sénégal bi bi nga xam ne réalité la ci. nga xam ne taxawaayu ñaari président de la république bu Sénégal président Macky ak bu Gambie. président dugal na ko fii ci Gambie la Sénégambie ndax ku ne xam nga ne confédération de la Sénégambie bi nga xam ne dañ ko daan seete ñun sénégalais yi ak waa Gambie fii chaque le février président Macky fekk si tey kan doomi ndeyam xaritam le président Adama Barrow. kenn du moom xaritam la doomi ndeyam la tey président démb suivre naa ko à travers la télévision nationale ca Grand Théâtre waaye mu ànd ceeg le docteur Cheikh Omar Anne le ministre de l'éducation nationale di xaritam di doomi ndeyam professeur Lamane ndënkaane ca ko nga sooy joxe da jox ki xam ki mun muy le professeur docteur Cheikh Omar Anne mu ànd ak ministère am son directeur de cabinet mu ngi ci kaw le secrétaire général mu ngi ci kaw madame Mbodj suma jabar waaye ñuy sant di gërëm le directeur de la construction Pape Abdou di gërëm Cheikh Fall mi nga xam ne moo yor chef projet di gërëm it kenn ci ñun muy Fallou Mbacke Mbuub mi nga xam ne Fatick la dëkk waaye su ma delloo tuuti ci gannaaw ndax tey waa Gambie ki leen gane si président Macky Sall c'est le maire honoraire de la commune de Fatick le président Macky Sall en 2002 la gagné les élections locales à Fatick en li amoon mi ku ne xam ko mu tekki ndomba tànkam yëpp joxe ko demaat élection locale gagné la commune de Fatick pour la première fois sur l'histoire politique en Afrique et au Sénégal mu présenté wu candidat élection présidentielle gagné ko muy le président Macky ba muy dem mu jël mairie bi jox ko le ministre chef de cabinet Matar ba muy maire waaye tamit c'est le maire honoraire de la commune de Fatick le président mooy président bi ci Afrique mooy président bi gën a ci Afrique démb dégg naa ko mu ne dans sept mois je vais partir ndeysaan président Macky Sall def ci réew mi kenn defu ko fi plan Sénégal émergent mu indi ko tey fii école sénégalaise de Gambie école bi nga xam ne fii ci gannaaw am na une ancienne école boo xam ne nee ma ci ñi jàngee fii laa bokk l'ancien ministre des affaires sous le régime de Daouda ci école bii la jànge fii dafa meloon ay pitax a fi newoon fii boo fi ñëwaan fi gis dara tey président Macky avec un budget de 500 mu tabax lii ànd ceeg le docteur Cheikh Amar Anne waaye ñuy sant di gërëm madame Bass di sant waa Gambie sénégalaise de Gambie yi fi nekk yëpp ak la diaspora waaye di sant l'ambassadeur Bassirou Sène mi nga xam ne moo def suivi travail yëpp merci beaucoup seen naa léegi Abdou Ndiaye maire de Kër muy ñëw membre du conseil des collectivités territoriales ànd ak ñoom Mohamed Sall Sila di sant Awa Diouf madame Sall. Allô, allô, allô.